الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال mbokk ñu ngi ñëpp di leen ziar leen ñaanal jàmm euh, di ñaan yàlla mi borom tawféex yàlla yàlla defal ñu tawféex defal ko mbooleem ñi nga xam dañuy diggu kàddu gi euh, te dañoo ñëw ci tomb bu am solo ñu fa yéene ko waxtaane euh, tomb bi nag lan la loolu ñëw al aynu loolu ñuy wax wàllu aju ci wàllu cet cet nag asbaab yëpp mu ngi bàyyikoo ci doomi aadama yi mooy sabab yi wax tax ñu ne nit cet jàppagu na ko ci ay nit lay bàyyikoo waaye du bàyyikoo ci ay mbaam ak fas cet nag doomi aadama ñoo koy teg seen morom yi doomi aadama doomi aadama ñoo koy teg seen morom yi doomu aadama làmmiñ da koy def bët da koy def ñaar nag ñoo fi nekk ñooy sabab yi nga xam ne cat am na moo tax yéen bi sallallahu alayhi wasallam de alxaynu xaq wala lisaanu xaq ba dëgg bu aay am na waaye làmmiñ bu aay dëgg am na eh, cet nag day gaar nit ki di ko yàqal mooy làmmiñ boo xam ne am na ay tooke eh, tooke yooyu nag bu jàppee nit ki mën na tax mu amoon ay am ay gàllankoor gàllankoor yi nag mooy yan da bëgg avancer doo mën a avancer te doo gis lenn la téye nag dangay gis ne danga am xaalis waaye doo mën a gis xaalis bi du taxaw dangay gis ne loolu lijjanti day dëgër même loo xam da gis ne daa war tey am jafe-jafe da gis ne doo am mënoo am soxna mënoo am place liggéeykaay loo yor du taxaw loo jugee dal ca la ci des loolu foo ko fekk rek ku làmmiñ bu aay jàpp moo koy def. lool nak lu meuna a galankor gàllankoor doomu aadama bi dundam mën Nah ko ci lu bari ndax meuna dem ba yak liggéeyam mu taxaw dem ba yak ay mbiri bopam nañ waron doxé deug deug ñu gis ne mbiri meuna taxaw cet nak yi way safara bari na alquran dafa ñew pour safara lepp lu way yor ci tawat lepp lu way yor ci tawat alquran nak dara bu ne bàyyiwul dara nag li ëpp lii jariñ jullit bi ak lu koy lor boo ko gëstoo ci alxuraan mu ko gis bu ne bàyyiwul dara nag du caage ne dangay bëggoon naan sama néeg bi alxuraan tudd ko loolu du wax loolu ay waxi tappale la sama bëñ bi feebar nii sama bëñ bi di metti alxuraan tudd ko alxuraan tudd na lépp waaye nag ci sa xarañteef ak sa dégg ci ngay mën a xam man aaya mooy tegtaloo ci sa wàllu jafe-jafe bi nga am noo koy saafara alxuraan nag kenn du ko rax alxuraan leer la bu jugee ci leer jëm ci lu leer boko bëgge bëggee jaxase ak lëndëm nag doon da say pexé yalla mën na ci def ay kemtan ba lolu antu wa alquran kën du ko booleeg ay tapal ak i alquran day safara bëpp jullit bo xamné da nga am jafe na alquran moko wax wa nazzul min alquran ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin kon alquran da nek safara ba nopi nek yermande ni ci ñu gëm waaye bu dee gëmul yalla ak perte la lay jura ay jafé jafé ko xam da nga bëgg di jariñoo ci alquran di ci jarñet faw nga sell ba nopi di sellal alquran kenn du ko laal fekk dangaa taq laa yamassuhu illa almutahharuna kon alquran bu ne japp nak sell du caage da nga dem japp wala sangu di ruul loolu sa xol lay lap day lap ci kinyan lap ci reuy Lap ci jëw lap ci bokalé lap ci soxoré doomu aadama ci ay mbir yo xamné yalla defal nako waye waaye waxul laabu zahir gi laabu zahir gi nak mom moy dem sangu set wala japp fekkee da nga yor janaba wa ila nga yor toj mu ndaw tour ndox wala xëy melon, non noonu wa da ñaan demal nga jappi wa dang koy laal waaye nag laabu baatin gi deug moy sa bir xol bi do ci neumal kenn ki ñaan lu way am bu lu mën am lu bari ba dang ko looy am mu tuuti tuuti nga yéene ko ko looy am mu bari bari da ko koy yéene ba noppi da yëpp da ngay ñëpp yiw mooy koo gis da nga koy jàmm di ko ñaanal jàmm moo tax boo nuyoo naan asalaamaaleykum yàlla yàlla defal leen jàmm nga ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah yàlla yàlla defal ñu jàmm defal leen ko nga xam ni nga koy waxee sa làmmiñ da nga koy jàpp noonu sa biir xol eh, li tax loolu mooy su ko defut da sonn rek waaye li ngay bëgg doo ko am te kenn ñaanu yàlla nag di wut mbir moo xam ne da koy bëgg da doo ko am kon gàkk-gàkk yooyu foo mu génn ci yow euh, koo xam nag cet daf la jàpp ba tax say mbir bopp lépp xëy xëy taxaw lu koy dindi ci alxuraan bari ni dañ leen di jox tegtal yu am solo tegtal yoo xam ne ci alxuraan képp nga ko mën a jële doon nag am na yeneen mbir yoo xam ni mën na ko def taqali ko cat bari na bari na loolu nit mooy def lu alxuraan jàqal ko ci bari na waaye ab jullit moom delluwaayam alxuraan képp la war a doon ak sunna mooy li yent yu jàngale ak li alxuraan indi te jógee ci suñu borom subhaanahu wa taala fatiha nag dara gënu ko ci jot fatiha ñu ngi koy wax dara gënu ko ci koo xam ne cet daf laa jàpp dara dara lañ wax dara nag koo xam ne cet dalaa jàpp da nga bëgg tàqali moom fexeel nga bind fatiha sootul fatiha ba mu àgg ba mu jeex ba wala daal yéen amin danga koy bind juróom-ñaari yoon nga bind sootul fallaxi juróom-ñaari yoon nga bind sooti naas juróom-ñaari yoon ak xulu sootul ixlaas mooy mooy xulu wallaahu ba mu jeex juróom-ñaari yoon yii nag bu ci nekk da koy bind juróom-ñaari yoon ci kayitu boppam koy bind bu ci nekk juróom-ñaari yoon soo ko boolee boo noppee da ngay boole yëpp nga xooj ko ci ab soow nga xooj ko ci ab soow boo ko xoojee nag dangay ngay fexe nga wut sunguf bu ñu wax xaax cooy boo demee ci jaay garab boo naan sunguf bu xaax cooy am nañ ko boo noppee nag da ngay wut parfum bu ñuy wax dunia ak miftaaxul jinn ak royal bu ki ñetti parfum yi nga koy booleel jàmbu saafara bi nga sangoo ko juróom-ñaari fan juróom-ñaari fan yaa ngi koy tàmbaleeg eh, guddi aljo mooy alxamis ci ngoon alxamis ci gannaaw timis ba alxames ci ay une heure deux heures du matin dig diggal boobu nga koy sangoo bis nga koy tàmbali ba alxames jël si waat képp koo xam ne cet dalaa jàppoon alaa kulli nga def lii boo ci kon ne yàlla mën na laa dimbal cet boobu mën naa dem kon cet làmmiñ la ak bët waaye ku bëgg taxalikoo cet incha allah rabbi mën ngaa jëfandikool yàlla mën na laa dimbal cet yi la jàppoon dina la bàyyi ci jàmm nga nekkaat si yitte incha allah rabbi